noo ngi sant sëñ Ahmadou ci euh, euh, tënk gii mu tënk ndam lu rëy lii nu am euh, di ñaan itam nañ nañ nañ ko ubbil jotlikaay yi yëglikaay yi yeetekaay yi ñu ubbil ko bunt may may may ko ci hmm. eh, may ko ci ndigal ah, ba mën a ba mën mam ñu ba xasida gi ah, eh, ñëpp mën ko gën a dégg gën xam fu mu jëm gën a xam lu mu doon waaw ah, ñëpp gën a mën a sant waaw ci ci ci ci ndam xam du lu néew nan àndandoog sun magi sargal si doomi daara yi jam nañu njog la ñëpp diir am nañu way wu dootu réer alhamdulilahi alqadir ndam ñëw na doomi daara yi yàlla nu sédde alxuraan nun lañu may naasi balaan nan maase kañ xalel yi daan daanaa ni doomi daara yi jël nañu ndam la wan Dubaay ak Abidjan Ndakaaru Njaay na ñëpp jóg nu maase waay sargal jaloore daara yi te alxuraan ji ay ndamam deful lu tuuti ci ñoñam ñëpp ko diir te noo ko jam jaaraama doomi daara yi daara sigil na senegal tey jii ci bépp capital waaye réew mi war nañoo fulaal ngir yàlla doomi daara yi jaloore am nañuy ñaloor jaloore yéen a am jaloor wallaahi yéen a mboor jaloore yaa ngi ci daara yi ku leen di daa wérul ku leen di dëkk daa wérul àddina yàgg naa cëral kàngam yi jiite daara yi sunuy xale lay dem biti réew sunuy xale yi dem biti lëmbe ko toj fa seeni géew jël ndab la indi daal di siiw kenn mën la mabbu daara yi sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa daal géew jël ndam ya indi daal siiw kenn mën la mabbu daara yi alaaji seex ja toj dubaay mokkal ga yéem na yooyu yi gone gu ndaw ci biiri baay jël ndam andil ko daara yi Cheikh Fallou Niass albaraka ndam lañ tegoon ci Afrika yaa ko ne cas du kii du kaa andil ko réew meeg daara yi waa C3S loola ndam Cheikh Fallou Sànqe moo ko jam mbindam ma yéem na ay kemam taaral na daayi daara yi waa sine koo ñëbantaree wërngal ba Moustapha Touré moo gàddu ndam la maa ngi kuy jiima noonu daara yi kon ndam yi teew ndam ya wéy yeyoo nañoo kañ ak way te sant ñiy jël seeni may di xëpp doomi daara yi la footballeur yi doon yeyoo la dongo daara yi yeyoo mbaa lu ko moy danañ la yoo ndam-ndam la doomi daara yi ab kub gënul kaamil fi nun jogante ji jogante nañ te jiitu nan na ngeen defaat nangeen defoon état na geesu daara yi terrain yaay yi jombu leen millions yi rong yi jombu pale ba laane jombu leen dalal fa doomi daara yi raaya ngëñal yi ñoo ko jël jaaraama nee leen njoo ko bur yàlla moo fasoo añal jàmbaar doomi daara yi jiitu ngeen malek ni seer Dubaay di leen damoo ba keer yéen a ca njoboxtal ya goor réew yëpp a ñeesun daara yi seen ndam yi tax na xol yi neex tey daara bég na ñëpp feex may ngeen nu mbég mu déeti jeex mbég maa ngi doomi daara yi Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na jëm fi yow yàlla na safan fan wi lawalaw yaay wéeru waayu daara yi waxaat ko Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na ñëw fi yow yàlla na safan fan wi lawalaw yaay wéeru waayu daara yi ban la amee ba fii nu tol ndam lun fi yootu dal ko jël sa fan wi yalna nañ ko ful ngay jité dawe dara yi faral taxaw ahmadou bass te selma lati xayru nas te sante Cheikh Bamba mi daas sam xel ci sargal dara yi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim